alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. fadilatu Cheikh Mouhamad Mahi Cheikh Ibrahima Niass fadilatu imam Cheikh Tidiane Ali Cissé. fadilatul imaam cheikhul makki Ibrahima Niass abnaaw cheikhul Ibrahima Niass wa banaatuhu asultaanu rasmi wal mahalli asaadat muqaddimin al kiram asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbégte mu rëy laa am tey ñëw fii ci tegu première mu nekk loo xam li ma leer na ak jagleel la goo xam ne nii ci ndimbalu yàlla lañ la ma ko yàlla jagleele mu tombe ci man pour ma mën a ñëw fii def ko waaye ñépp xam ngeen ne fii ay nit yu baax a fi nekk ci Kaolack surtout ci Medina Baye yoo xam ne ni kenn ku ne yaa ngi def lu ëpp lii may def sax waaye lii moom yàlla moom ma ko jagleel maa ngi koy sant yàlla di ko ko gërëm ndax ñu jox la daara joo xam ne nii alaaji Abdoulaye Niass al akbar moom moo ko sosoon kon ma man cee teg aw xeer tabax ci dara lu mu tuuti tuuti ah man dama koy sant yàlla damay wax nag léegi ci yàlla Suleymaan waxoon haza min fadli rabbi kana haza min fadli rabbi di gërëm bu baax ah Cheikh Mouhamad Almaayi alxalifa mi nga xam ne nii moo ma ko yombalal moo ma ko may ma man koo def ak imam Cheikh Tidiane Ali Cissé mi nga xam ne nii tamit moom tamit ci ñi ma ko yombalal di ma ko digal te waxtu wu ne mu di ma digal lu baax ngir ma def ko mu di ma soññ ci loo xam ne nii bu ma ko defee dana amal xeet bi njariñ ah tey jii nag dañoo nekk ci jamono joo xam ne nii ndaw ji jàng moo ñu war ak jéem a jub ndax cheikhul islam dafa wax lu am solo mu ne fa inna mustaqbala kulla watanin innama yatawaqqafu ala shababihi lakin la ala kulli shabab bal ala shababil mustaqafin zawil axlaqil hamidati والهمة العالية فأما شباب بلا ثقافة ولا أخلاق فخرس بلا ثمر Cheikh Ousmane dafa wax ne réew ci ay ndaw rek la mën a wékku waaye nag ci yan ndaw ndaw yoo xam ne nii day nekk ndaw yoo xam ne ni dañuy am xam-xam am jikko ju rafet am ambition ndax ndaw bu amul jikko bu rafet mi ngi mel ne nji mu amul meññet yàlla nañ ci yàlla musal ah du ma fàtte nag du ma bala ma jeexal ma gërëm sëriñ man xamin Ibrahima Niass ndax comme ni ko waxee du mën naa am yëg-yëgu ñëw def ko moom moo ko tegtal ak moo la fay ko faan yi yàlla la ko yàlla la yàlla fay ndax comme ni ñu ko waxee rek duma ci delluwaat waaye at mu ne am lu ma ko daan génnee di ko def ci daara bii yoon ma leeral ñépp xam sama maam Maxtaar Mbuub sëñ Moodu Moustapha moo ko jële woon njàmbur yóbbu ko kayal mu dafa jàngale alxuraan xëy na daara ja gannaaw bi continué wul ma ne woon naa ko dundalaat dundal gi dama ko fay def di wuti ay taalib yu fa jàng si waaye xanaa su ma fekkee fii ma dëkk ma fekk daara yoo xam ne ay taalibaa ay taalibee ngi taxaw amul fi mu jàngee ma jox ko priorité bu dama koo bàyyi waaye damaa jox bii priorité ndax priorité mooy mooy alxuraan sax ba muy joxe asaka da ko wax dafa joxe priorité li fuqaraa wal masaakin ak ni mu ko teglee di ko gërëm bu baax ndax soññ na ma ci taxawu na ma ci encouragé na ma ci te loolu mooy li subhaanahu wa taala wax xuz min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bihaa man yaakaar naa li ñoo defal dana yokk sama alal ndax wa maa anfaqtum min shay'in fa huwa ndax bi ma ko misa bi ma ko mébétee ak boobaak léegi rek gis naa li yàlla yokk ci man moo tax bu ko may calculer ne dana mat cent millions ma dafa avancé rek incha allah dana moom wax dëgg yàlla daf ma def ne doomam saa yi ma woowee la muy njëkk def mooy kaf ak man ñeme loo ma boppam yal na yàlla fay yal yàlla du bëggal sa xol damay am mbégte di waxtaan ak yow waxtu wu ne duma duma ci tàyyi yàlla yàlla bégal danaa gërëm nag ñoo xam ne nii amoon naa ñoom fi ay kóllëre yu yàgg Baye Ibrahima Baye Khali Niass mi ngi nii yàgg nañ maa moom dañoo xamante lu yàgg bëggante ci liggéey muy may ñëw këram di fa fanaan muy dem sama kër di fa fanaan gërëm bu baax tamit Baye Mamoun ah sëñ ma amoon moo ñu boole woon bi may wut chambre de commerce bu baax gërëm bu baax tamit sëñ Abdou Mali moom tamit taxawu na ma tegtal ma ci loo xam ne nii ma def ko fii ci tarif alxuraan bi te loolu lépp maa ngi gis ni ma ci yokkoo di leen wax ne continuer leen ci loolu ndax loolu mooy li xam ne nii moo may jariñ ah damay mujjoo nag di gën a gërëmaat xalifa bi rek ndax ku dégg xalifa bi wax yi muy wax danga ciy jaaxle ci ni ma bëggee ak ni ma ni may ndamoo waaye loolu lépp nag du man ni la bëgg daara ji la bëgg alxuraan bëgg ba képp ku nekk ci alxuraan rek loolu la lay wax ak képp kuy liggéey barki dem bi ñu fee la wax wax bu rafet boo xam ni motivé nañu mu commencé ko ci bàyyi siis ci léemu def fële jaarale ko ci man kon président Baye ñu lay gërëm di la sant ñun tamit collaboration bi nga am ak ñun gis nañ ko mu baax a ah di gërëm tamit suñu sëriñ sëriñ Babacar mu kàbbal ñëpp xam nañ ne su fu gàmmu jotee day bàyyi lépp ñëw fii bale fii bam set te loolu mooy wane sëriñ Bachir Mbacké ni mu àndoon nag Cheikhul Islam ci lépp maam Cheikh wax ko léegi te loolu lu yàgg yàgg ah ñun nag di taalibe yi ñoo ko war a gën a saxal ci suñu diggante di mujjee samay nuyoo di gërëm opérateur économique chambre de commerce yëpp di leen wax ne opérateur économique ku am ñëwal def ci ñëwal def ci daara yi lu fi may def yàlla dana la ko delloo fii ci àdduna dana la ko delloo feneen loolu moom lu ma wóor la di gërëm bu baax waa TVS ci efficacité di am ànd ko waa Alfayda ak mbay comme kër de ville ci xale yi nga xam ne nii moom ci boppam moom moo ci encouragé ba ne ma bâtiment buñ koy defar dañ koy defar pour fukki at ñaar fukki at dañ koy defar pour téeméeri at nañ ko nañ ko mu mu ci loolu gërëm tamit ñi nga xam ne nii ñoo may jàppale ci li may liggéey fi yëpp ci kaw la ak commencé ko ci docteur Mbaye Guèye waa ADK gërëm waa waa waa waa waa réseau Sénégal Gambien Adja Moussa Koro mi ngi toog ànd ak ñoom gërëm Adja Pat Samb gërëm Banaatul Fayda Nisaatul Fayda gërëm waa Refop gërëm waa Iftaak gërëm ah waa euh, réseau ci euh, plateforme ak Ndeye Lobé maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla yàlla may ñu àggale ko ba tàmbali yeneen ñeneen tàmbali yeneen ba nga xam ne képp ku jaar ci daara tey jii danga am da nga yëkkatiku te yaakaar naa li imaam euh, li li sëriñ maa yi wax mooy daara warul rafle ndax ñi jaar ci daara daara defar na leen ba yàlla teral leen yal nañu yàlla yal na leen yàlla dundina teral yal nañu may jàmm yal na yàlla barkeel Sénégal jërë ngeen jëf maa ngi sant ñeent wa salaamu aleykum